sant naa ko bu wér a wér tey ñaanal dëgg-dëgg jëmmam ji soxna de Saliou mu yàgg fi lool te ànd ak wér maa ngi koy dagaan Serigne Béthio nga xam ni moo man lépp te telewul dara di ñaanal soxna Aida Saliou yàlla na fi yàgg te wér waaw maa ngi nuyu mbokki taalibe yépp mbokki cantaakoon yi euh, rawatina ci yeesal gi maa ngi leen di nuyu te di leen bëggee te nag di leen di leen di leen di leen won sama cant ci soxna Aïda Saliou waaw gars yi dañoo ñëw fekk ma ma toog di seetaan télé ñu ñu fekk ma sama néeg man leen waaw waaw si leen waaw nii la ko sëriñ bi dogale waaw ma ci santaat sëriñ Béthio lool ndax fu ma fekkoon it foofa rek laay waxe waaye ñëw nañu fekk ma ci biir waaw fii rek laa leen di recevoir waaw mm. mm-hmm. waaw moom la dëkkeeg man soxna yi da nagam yii du màggal kese soxna si dina ko indi 17 avril dina ko indi màggal dina ko indi gàmmo dina ko indi tam xarit soxna yi de nii la dëkkeeg man du ma ni waaw sëñ Béthio ni ko woon jàkk ni ko dénk naa la maane bu mu xiif bu mu mar bu mu rafle bu mu bànk boobaag na gëni soxna yi da wàccul yoon wi te man xam nga ni ku ma gis xam ni maa ngi ci càtt gi barke Serigne Saliou ku ma gis xam ni soxna yi da seetaanu ma banque moom waxaale wu may waxam xawma nu banque di mel xamatuma ko bu ma ko xamoon nit xamatuma ko wax dëgg yàlla nañ waxante dëgg nag xamatuma ko rafle it wax moom moom waxi rafle waxatuñu ko loola moom sëñ Béthio teggi na ko fi waaw ànd ak moom rek a wér santaat naa sëriñ Saaliwu ci ndigalul sëñ Béthio lii mu ma jox ma jëfe ko ak ma cee sant sëriñ Saaliwu santaat sëriñ Béthio ci lim ma boole dëgg-dëgg jëmmam waaw waaw neex na ma lool ba weesu lool barki Serigne Touba Mbacke xam ni sëñ Béthio rekk kay dëgg moo xam lépp lu muy def jël ma ndeysaan bëgg maa dimbali rekk ak yërëm ma waaw muy def waram ji warra ji nag moom du fi jóg waaw waaye làqu na ci suñu gët waaye gëm na ni sëñ Béthio du fi jóg mu boole maag jëmmam ju tedd ji di soxna Aida Saliou ñeewuma sama benn morom na ko sëñ Béthio waxoon moom de damaa bëgg ñu du ko ñee waaye bu mu ñee kenn soxna yi da dëggal waxam ja wone ni mooy jëmmam waaw wone ni mooy jëmmam fii bi wa sëñ Béthio defee war a jéeg léegi vide amu fi amul vide ndax soxna si da ko mate barki sëriñ Béthio soxna si da koo mate sëkk sëñ Béthio sëñ Béthio ngi fii man santiru ma demug sëñ ndax bu ma ko santiroon danaa danaa tawat ñi ko nit ñiy waxe di ma ko jiiñ te may sant Serigne Saliou bërki démb laa jóge France fii laa toog mu fekk ma fi ñuy wax waxi France mu ne ma waaye doo dem defi shopping demal defi shopping boo defee trois trois semaines sax nga ñëw loole laa wuti woon France man shopping laa wuti woon France jëndee parfum de classe <laughs> loolu ma fa yóbbu ak tenue sport santaat Serigne Béthio looloo ma yóbbu France waaye soxna si teraanga ji mu ma jox ah du guleet teraanga ji du guleet te tee lii rek ngeen gis kat moom rek la nit ñi mën a gis ndax bu doon lu mu def ma wone ko kon dan naan sax est-ce que kii lan la waaw lii la nit ñi mën a gis mais li soxna si séq ak man lépp man mënatuma koo xam sax barke Serigne Saliou Mbacke takkaayu or yaa ngi fi xéewali koppar yaa ngi fi yére yaa ngi fi soxna si daal man damaa xamatul lu ma koy wax lu dul di ko kalaame ak Serigne Béthio man Serigne Béthio rek laa koy bàyyee barke Serigne Saliou Mbacke Serigne Béthio rek xam naa ne boo leen boo leen yeexoon tuuti sax gëléem yaa ngi ñëw waaw gëléem yaa ngi ci yoon wi ñëw ak condiment yi damay maye ba doyal ci télévision laa ne caméra yaa ngi ma tiim loolu mënuma ko fen ñi ma koy maye ngi toog waaw damay dikk di maye ay nag ci màggal gi di may condiment ci ñi ma neex loolu soxna see ko fi def wax dëgg yàlla sant naa ko lool sant naa ko fa sant di yem liggéeyub sëriñ Béthio bii mu yeggale foofu cey fa mu yeggale liggéeyub sëriñ Béthio bii soxna Aida rek a neex a dégg ah man de sama jikkooy bàyyi laa yor duma wax ci kaw di wax ci suuf man li ma gis laa wax barke sëriñ Touba barki démb ba ma demee ci enclos yii nagam yii ëpp fukki junniy nag ah keroog sama xoltooy na xam ni soxna Ayda ah soxna Ayda moo sagal sëñ Béthio soxna Ayda sagal na sëñ Béthio liggéeyam bi laalu suuf toggi ajuma toggi ajumaam yii nga xàddina waxuma la Sénégal mais àddina wërngël këpp teg nañ ci seen bët muy togg di joxe rek amul xaj amul seen te ñim ko jox sa xamu leen te bëggul ko ni ko jërëjëf yàgge na ko xolam bi liggéeyal Serigne Touba da cee sax togg di joxe ci àjjuma yii kenn du ni guléet sëñ Béthio leeral na ko fu ne internet bi ku ko tàppe teg ci sa bët sëñ Béthio yàgg na koo wax tey soxna Aïda daa firndeel waxi sëñ Béthio ji chaque semaine mu def cinquante million moo loola ku ko man ku ko man it amoo xolam barke Serigne Saliou Mbacké loolee soxna Aïda di ko def te ñim koy defal xamul yéen daaray alxuraan yi prison yi hôpitaux yi hôpital dang yi bawul kenn barke Serigne Touba dëkkandoom yi ci Madinatu Salaam man mii lay indi xéewal yii ci sama kër chaque ajjuma maa koy séddale chaque ajjuma maa koy séddale soxnaay de daal manak samay bokki taalibe danu leen dañ koy bàyyi ak Serigne Béthio waaw man daal bàyyi naa koog Serigne Béthio daal waaw ba naa koog Serigne Béthio Serigne man lépp te tëlewul dara yàlla na yokk ay ndamam waaw mënumaa wax ba daaneel te màkkaan mii mu ma defaral mënuma ko bañ a tudd ndax sëñ Béthio ay waxam du furi du yëbb du naax saay barke Serigne Touba bi may jëndal sama sonota bii la ni ma tabaxal naa la te bu màggetee ma yee salaat loolu yaakaar naa moom addina bépp suivre nu boobu vidéo tey soxna Aïda Saliou di wane ne mooy dëgg-dëgg jëmbam yee salaat kër gi tabaxal ma sama appartement ci kaw ni ma bëgguma nga bokk kenn man képp ak sama appartement tëddu ak ma Samba tëdduma ak ma Demba te ay chambre yi chambre moo ci nekk chambre bu ne mu équipé ko bu ci nekk euh, toilette intérieure rek ay million la ci def ni ma bëgguma ngay jaxasoo kenn déggal lii waaw xanaa lii mooy maay sëñ Béthio moo ne bu màggatee ma yeesalaat soxna si yeesalaat na ko waaw ñëpp gis nañ ko soxna yi de ci condition yi la ma teg waaw ma koy gën a tee santeeti sëriñ Béthio rek te xam ni lépp mooma waaw jërëjëfati sëriñ Béthio waaw jërëjëfati sëriñ Béthio waaw. Ah. boole ki nga xamante ne mooy Soxna waaw li ma mën a fàttali mooy sëñ Béthio bi may booleek Soxna Aida njëkk na maa booleek moom ca Ngaabu muy 2018 waaw màggal màggalam gu mujj ci saayir nde du fi jóg boobee laa toog mu jox ma ndigal ci Soxna Aida mu nekk Bordeaux jox ma ndigal dinaa ko fa fekk. ma dem Bordeaux fekk ko fa mu joxati ma ndigal ci soxna Aida waaw waaw sëñ Béthio nag ndigalam moom jëfe rek waaw jëfe rek waaw waaw waaw soxna Maane Cuun mu Cheikh Béthio waaw mu soxna Aida Saliou Cuun waaw lii la sëriñ Béthio dogal waaw <laughs> waaw jërë li may tëje mooy santati sëriñ Béthio rek jërëjëfati sëriñ